coalition bu ñuy dégg xalifa Sall di ci dégg parti démocratique Sénégal notamment Karim Wade di ci dégg itam Ousmane Sonko ban avenir nga ko gisal euh, coalition bu mel noonu. bon l' avenir je me garderai de me prononcer pour une coalition qui est dans les limbes boo xam ne bi daanaka juddoogul bon ou bien mu suy judd mu ngi au berceau bon alors à telle enseigne que bon moi je ne pas dans une boule de cristal je fais de l'analyse ce que je sais c'est que. d'abord il faut qu'on insiste un peu sur coalition wax nga dëgg coalition boobu c'est la plus emblématique en termes d'envergure ci maanaam ni mu toll et en termes aussi d'ambition ci lañ bëgg c'est la coalition là pourquoi, pourquoi envergure ak ambition ah oui parce que euh, ay ngeen na ko seq Khalifa Sall c'est une c'est fait partie quand même de l'histoire politique récente du Sénégal et même relativement ancienne bon euh, Karim Wade si on... nga wax loolu Khalifa Sall ah, du temps de Jean Collin ak ñoom Magatte Lô ci la commencé def ses armes politiques bi gannaaw bu nekk ministre am na ñu bëri ñu fi toog doon ministre Khalifa Sall était ministre avant eux Khalifa Sall a été ministre chargé des institutions je crois ministre du commerce aussi euh, ensuite un parcours politique mais mais Khalifa nga may wax ba léegi waxuloo ma par exemple appareil non non maa ngi ñëw yow yaa ma ne lu tax nga. waaw waaw c'est ça loolu laa bëgg a comprendre. non on est oh, non euh, d'abord une coalition n'est même pas un appareil ce n'est pas un appareil. non mais baax na ci par exemple ay appareil ko. moo tax maa ngi ñëw maa ngi ñëw xam nga dama la ne euh, il li may wax appareil parti laa bëgg a wax wala ma wax au moins benn bu loo xam ni lu ñu mën a teg loxo la quand ak Khalifa. waaw d'ailleurs sax ñoom am nañ parti ami euh, Sonko il a son parti. non ñëwaguma ci Sonko dama bëgg ñu taxaw d'abord. ah déedéet mais parce que parce que coalition bi yow da jàpp ni coalition la boo xam ne ay ponkal ñoo ko seq loolu moo tax ma bëgg ñu étudier kenn ku ci nekk lan la ponkale. non c'est-à-dire xam nga dama ne. waaw dama mm-hmm. su ma nee emblématique mun na am sax du problème yi doole mais problème yi figure yi maanaam ñi ci ne xam Karim Wade ça fait tilt. Khalifa Sall. tilt comment. mais mais tilt mais Karim Karim Wade ñëpp ko fi déggoon. ministre du ciel et de la terre. nekkoon fi ñu jàpp ko fi mu dem Qatar. alors il se considère comme un des héritiers du PDS même si le PDS s'est vidé. dans sa condamnation waaye sa condamnation non non yooyu non su ma nee su ma nee emblématique ak tilt c'est-à-dire dafa bokk ci euh, euh, décor politique bi. ci panorama politique man évaluer wu ma quoi parce que là il y a d'autres instruments pour évaluer. Mm-hmm. je ne l'évalue mais dama ne soo ne Khalifa ne Sonko ne Karim mais tu as une coalition qu'on le veuille emblématique mais emblématique ça ne veut pas dire grand chose cela veut dire simple que simplement dafa dafa dafa fës boo xam ne bii dëgg-dëgg on n'a même plus besoin de publicité parce que ñoom sax ils font leur propre publicité voilà ce que j'entends par emblématique par ambition aussi ña fa ne ñëpp su ma ne par envergure par par par emblème et par ambition ambition aussi ñoom itam li ñu bëgg mooy place yi Macky Sall bi ñu wax yëpp fi Sall toog lañ bëgg a toog daane Macky Sall démocratiquement loolu lañ bëgg donc moo tax ma ne la euh, voilà la coalition emblématique et cetera mais euh, Pape Ngagne il faut s'entendre même sur le mot coalition avant d'approfondir l'analyse parce que contrairement à ce que l'on pense la coalition c'est pas une panacée ce n'est pas parce que am nga coalition rek que tous les problèmes sont réglés et tu vas gagner non non non d'abord une coalition par définition lan la c'est un conglomérat de partis agrégat de partis parti ngi nii parti n nii ñu dajale ñu ñu ñu ñu ñëw mais une coalition ce n'est pas une coalition ce n'est pas une osmose ce n'est même pas une communion parce que seen conviction yi bokkul c'est un compagnonnage de route électorale une coalition est un compagnonnage de route électorale mm-hmm. loolu la rek donc degré bi nga fekk noonu la degré amewul demewul noonu mais c'est nécessaire c'est nécessaire parce que la carte électorale du Sénégal depuis mille et même un peu avant ni mu bindoo léegi c'est en peau de léopard amul benn parti bu mun a tëb a tëb rek. moom kenn rek gagné élection yi. donc les coalitions même si quelque part elles elles peuvent ressembler à des hérésies. Mm -hmm. elles sont quand même nécessaires. waaw loolu laa bëgg a wax. léegi soo waxee. et puis une coalition surtout pour gagner mais pas pour gouverner. mais il se trouve que d'ailleurs on ne va pas vers on va vers les locales. bon là c'est encore... des locales. Justement. bi nga gis bu fekkente ni dem na. Mhm. parce que coalition bi. Euh, d' abord de peut-être am na ci ay critiques yu bëri yoo xam ne dem na yaa ngi ko ciy dégg. Mm-hmm. notamment ñi nga xam ne ñooy leaders yi kenn ku ci ne am nga am nga am nga problème ak yoon maanaam am nga affaire ak justice. Mm-hmm. boo xam ni ñii d' abord est vrai am na condamnation vidé nañu ko mais condamnation bi tax na ba euh, seen seen droit bu civique wala politique am na problème muy Karim Wade muy xalifa mm-hmm. sonk son affaire aussi mi ngi ci yoon. est-ce que loolu yaakaar nga ni euh, coalition la boo xam ni. bu mën a bu mën a bu mën a gañe la bu mën a dem la bu mën a gañe ci local wala ci leneen. <laughs> d'abord d'abord <laughs> d'abord deux choses tu as convoqué la justice Ablaye Wade daan na wax ne les problème de justice suñ ko dugalee ci politique soo koy xeex doo ko xeexee au tribunal doo koy xeex sur le terrain politique. tout à fait voilà donc ce qui veut dire que <clears throat> loolu nga jàpp yëpp comme gàllankoor. waxuma ne du gàllankoor de parce que quand même l'un il, il est sous contrôle judiciaire les deux je crois qu'ils ont des problèmes d'amnistie ak yu mais yooyu c'est des problèmes yoo xam ne taxul politicien baisser les bras de politicien pour mu capituler politicien day reyante dem ba jeex ce ne sont pas des obstacles insurmontables politiquement maintenant si vous convoquez la justice ça devient beaucoup plus compliqué mhm. parce qu'une barrière de justice maintenant am na beneen aspect boo boo souligné. Mhm. mooy loo waxati pour ñu gagner. waaw alors d' abord on va on ne va pas vers la présidentielle. non les locales euh, vers les locales. Ah alors bon moi je ne peux pas faire des projections comme ça quand même ce que je sais c' est que une élection locale est capitale. Mhm. parce que qu'on le paromètre la deuxièmement il s'agit de la vie de tous les jours à la base mm -hmm. donc dans les foyers mhm. donc élection yu bu ko kenn négliger je crois que le président de la République est conscient de leur importance ñoom ñi nga xam ne aussi ils sont dans l'opposition soo gisee sax ñu def euh, coalition bu mel nii c'est qu'ils sont conscients de l'importance des élections locales ça je vous le dis mais comme euh, on est dans la phase de construction des alliances. Mhm. il est difficile de se projeter. pour dire que bu ñu taxawee ci Ousmane Sonko lu fekk nga dégg ko ci coalition boobu amoo ci lu la jaaxal parce que bu ñu déggee moom.